November 11 nak, bés bu egsee rek xool yëpp tooy ndax daf ñuy fàttali loo xam ne lu métti la woon. November suñ nee rek la first November man ci laa dee door de am problème balaa November di November 11 victims olmi kaa fo yefa. nkema tarta womol l'économie nu yaalon koy kaa fo yeefa. ɓay ɓe siren ɗon lunkilen ɗon ikema e ɓoodala to ayta akakata dow ko laatata moom dot faal ak basiru baro Nyom lañ njëkka rey sànni leen ci trok bi ci kaw patrol boobu boobu lañ doon xaar ñanco ben tey gisuñ ko imu ite murunta watu watu dorong ite ni woni ko yaka murun woni ne bukap adate bola folungo min nan tol fanam fata kabri ibam fama faka was uh, 11 months 11 months old ya ya amali kitite nate adunte yam fala ya yam abada ha ñanco munun ko fatte nekkul doom boo xamante ne dañ koo fàtte i ñanta ñunu kiitindi la de yee sorong moo taa kala kote ke ña nga xam ne moo ñoom ñoo reerandoor that same night kuma si taseel suma le na ana dot dooma faale muuse muta yaa muta nu yaa faa yaa saare fo kabiri wiriloo keta nu yundum baaraksi ye mu wiroo ke je alaikum bolomi li len do nyanda je fi di fo hagen yalla yalla wacce jàmm fi si suñu bir su weso ma invite Fatou Samba momu duga si ñu welcome suñu semester yi weesoo o fa Samba momu duga si ñu welcome suñu semester yi fi si li ah, nga xamne modi ah, Gambian <laughs> naka la. yow sa sa sa baat bi neexut. wallahi azim baabu la daaxa woy. baabu maa ko woy gis nga lu ma fi woy. <laughs> baabu moom su woyee dara du dee saf tey na xoolal maa woy nay seetaan gaay dañoo wane suma woy bi moo daaxa bu baabu. unfortunately layguma baatin nabiya bi baatin nabiya bi is a big disgrace another tissue paper. non man woy rek laay def naka la woy naa de gaay xam nañ ne man woy naa tey moom lu ma la woyal gis nga woy bi. man nga woyal. te man maa war a na baat bi nee na na neexut xam naa ne baabu ngay jàppale rek waaye tey ñu ñu seetaan nañ xam ne man maa dinaa xa baabu wéy waaye léegi baabu dama bëgg nga ñëw baabu kaay gars yi dama bëgg ngeen wax nab yaa ngi nii wéy na dèjà baabu nekku tubaab wala fu mu taxaw dama ñëwal leen nii nga ñëw taxaw sama boor ma ah man tey man maay jabari président bi tey maay jabari Adama Baro waaw non yaa nekk jawaa xam naa sa daalum guda guda bi tey maa la sut baabu man nu ma njoolee <laughs> non te non Nabia Badou mom. ma samay xibaar gi commencé tey sax waaw non ñëpp xam ne ma maa daaxa wëy waaw léegi Nabia a dawal janxa kaay man dama bëgg a gis jigéen bu ànd ak tubaab kaay kaay nga wax ma noo bëgg how are you gentleman can I talk to you one minute just a minute please plain time <laughs> Why when your girlfriend or your wife tell you I love you, you don't tell her plain time. <laughs> Babu naman nala, why na biya diga diga bata mi dafa nahari. Why na babi don da hangi babi dafa sew. Ay sa basi dam ko yoko tung me bills. Why mo babi mo dafa gana tuti rek. Ay babu diga diga diga diga. Yo na biya ay disgrace yan. Kon nang mo kay semester avenue back. How are you? I I just like you. Look at my camera. No, no, no, no. Huh? No. no ay xoolal kii smile ma smile boo xam ne jëkkëram ne non non non no how are you ah, how is everything how are you fine ay yéen tubaab li moo tax ñu neex ma dégg nga fine ak jàmpala te la <laughs> gaay nekk di def ne sax am naa gaay doon xaw a liit su ko defee mbokk yi nuyu leen rek waaye baabu dégg dégg dégg yow na bi ya ngeen iñaan tey dama xam ne ñu àndal den iñaan just guess what tey Fatou dafa sanse ba xam fa sanse ah ñii comment ma bëgg a gis seen comment xool leen tey man maay rakki bébé puy séeri Sufiyaana Njaay sa Sweden tey moo jaar si suma sanse lii la bébé puy defati xool leen suma mees moo ma ko yónnee suma top ah suma tibey ah si may daala si ah xoolal ni ma naay see tey maa ngi mel ni kuy modal tey nag modal Fatou Samba su ko defee rek moo koy nuyu leen si Semester Avenue ñu xool suñu airport just give me a tour ñu xool airport bi xool leen bi fu mu nekk mu ngi xaw a empty ah mu ngi xaw a empty parce que ñu bari ñëwabun o ñi war a dem demabun si kanam tuuti xam naa dineen xool ndax ñit yaa nge ñëw na ñiti ñëwul ndax semester yi ñu ngi ñëw ndax célébrité yi ndax Gambien si bari gaay amun paas <laughs> ana gambien seen amulen leen gisuma len len na dixième ma gën har xaar si gën a xaar wax leen ma bugu dala so bu ma blim suma toge okay so today I'm gonna talk I'm gonna sit down I'm gonna be the semester the new airport the fifth semester bena pa maa ngi ko gis mu ngi ñew ne haram hol na kid na ko approach ah ma na xaaral ma na dina ko mën na approach so ñu waxtaan ak moom ni ah, la gaay di xaar saa su ne Semester Avenue télé yi bari neen waaye bokkuñu man paa bi laay xaar paa salaamaaleykum dégg olof small ah, ne ah, ye naka na ne waxee nopp ye kanu man ye kanu <laughs> waaw waaw kay kay paa bi ñu waxtaan dafa dem waa kay bro ñu waxtaan wakanya waxtan na nga def solo man buwa makalo buwa makalo pa bi mom num tuda ke uh, ah, kalilu makalo kalilu makalo mom fu mo dem spin spin ah uh. pa yu ah wow. wa ki mo ngay def na fi 45 years 45 ah Dede ke. Ah, dede no 45. Yo ko mo yo Ah, super. ah, ko yo mom sa di ko dem da. Ah, kan la ñu la gis ci airport bi ada def fi. Ah, mom la ñu gis. moom laa ñëw gunge si mhm. ah mu ngi delluwaat dafa ñëw dafa ñëw holiday one month so mu ngi delluwaat. am naa makaloo kunda yi dañ bëgg ah lo len ko togal ñun ah ñam nga ñum duñ jee bëgg a lekkee neex su ñëwee fi lekka nakatu naka di hobby yu kenn xamut yu la gay di naw nama ñun daal fii rek lañ dee dundee yow soo ñëwee nga bëgg a ceeñ suñ suñ suñ so kontaan ngeen ngeen gis. ah wax dëgg kontaan nañ trop dañ gis mm-hmm. every five years la di ñëw au oh, four years. ah so. Eh. Mm-hmm so mu ngee dellu ñu ngi ngi ngi so yan yóbbal ngeen ko jox no ah jox nañ ko si kong yeeg ma bita ko la yeeg bagage yu bari lañ ko jox ma ci lo si yóbbal yo sa bo. ah sàcc fur lan man ma ngi dëkkaa lu fi di ah, waaw ya. kan xam nga gay kan rek xam nga semestre ñu ne ne mu na jël gay seen bagage and all that so naka la nga gis sa papa after five years no ñom spanish yi xam nga ñoom duñ indi dara Ñom kañ seen mbubay li fi So gisee seen mbubay soo gis loolu mu seen mbuba yi seen tube yi dee bari poos ni dara du fa dee nekk. <laughs> yaa ngi tooñ paaw yow dafa mel ni sa po da nga ko def ko nu mu suma po dama ko def maam. ah si dara ah. si ñoom kañ ñu dee dara lu ne mun nga koo ah. Ah, waaye dara moom man ko ko santaane moom kañ. Mm-hmm. man du ma dee jëndee yére si bi naka tudda si bitiki mm-hmm. non man every suma yére yang sion bi rek. macha allah comme que maa fi nekk ma. léegi su la joxee ma jox. waaw inshallah allah. waaw afta ka jox ma sa nomba rek suma bare paree waaye laa. léegi mbaa nag ngay seetaan Gambian TV. No. legi saatal di setan nga. ok programme bi kañ la mo play. tay ji mu ngi live right now nga dem YouTube nga setan ko si YouTube bi ñu fi di celebrate semester. ok ok that's good. Ah, eh, thank you jeuf wa all right brother. gis ngeen ko ki ko ko gis xam ne lekkakat la gis ngeen mu ngi tie mu ngi tie li bi. Bitilin daw bi, comme moom mooy semester bi ah te xëj na musuta dugg a plane ah waaye ku baax la ndeysaan ma ne ko ku baax la so tey nag we have an empty airport let's stay ñu gis naka la fay demee waaw kon nag gis naa fi beneen semester bu baat def yu fi baat nes gaye ni baala ma rek naaj baa nekk foofu te xam nga man dama wàcc bees du ma dee bëgg a dem naaj naka nga def. jàmm rek Pausman maa ngi laa nuyu Pausman. Pausman Pa Ousmane ah. dama ko dee seetaan. dama ko dee seetaan ah. Pa Ousmane léegi dafa dafa màgget kenn xamatu ko. non màgget tudde yaa ngi ko tooñ <laughs> ah, ñu nga ñu tur bi ak ban boor nga jógee kaay ni man maa ngi tudda Omar Diagne. oui dama jógee ñoom damay delluwaat France laa jógee woon. wala caméra bi France. waaw dama yóbbu France. nañ dem. Nindam. dem foo dugal si baag bi nda si daal foo bugg rek waaw ah. ah. bugg naa dem France nañ dem alright so lan nga ñëwoon def si Gambia da nga ñëwoon liggéey da nga ñëwoon business da nga ñëw seet si mbokk yi dama ñëwoon seet si famille bi man ak suma jabar ñoo àndoon waaye moom dellu na last week mom two weeks la amoon man three weeks sa jabar num tudd may may naka jaañ jaañ kañ jaañ naar tagal ma jaañeen <laughs> non manuma tagal jaañeen maa ngi jégalu ah yaa ngi jégalu alright naka woon sa holiday bi lan moo si gën a neex oui neexoon na trop because suma jabar français la mu ñëw ak ma famille bi mu accepté mu like suma famille bi nu ñëw dundee yëpp affaire yi Gambia neex ko trop bu moo dem sax daf doon jooy ndig neexaay Gambia mhm. oui. so si wàllum lekka ban lekka nga gën a enjoy. yëpp. ah wax ma ban ban ban. Ah, ma ban exact. waaw ma ma dem yëpp man dama dee. ok jërëjëf. nekk bu baax ne si daan sama saa All right thank you waaye yéen kii sant de xoolal Adidas am. ah def baagi design am nag de xajaan di def nii ah noonu la Gambia is a nice place um it's a beautiful Gambia ku xamul Gambia rek déggat di Gambia waaye dëkk bi yëpp tey airport yaa fi gën a sanse oncle yaa fi gën a sanse bul ma rusloo one minute rek nga nuyu askan wi one minute maa dama ne ñëwal nii na nga def hello lady sister kom su ko defee rek ñu bàyyee ko noonu dafa mel sister bi mo bañ mo interview waaye sila boka? bokka semester avec mani bena nit ku joge all the way nigeria suma mune approach dina uh, try by all means ku set ko uh, unfortunately we also working we just want to welcome him to gambia sir is nigerian people like this huh He's running late. He's running, who is He's he? running late. Who is he? Governor of the state in Nigeria. Yeah, but it would have been nice so that you know the TV can beautifully. So I'm the commissioner for I'm the commissioner for information and things like this are pre-booked oh, okay. because he has another. I really know. Time. Yeah, that's what I'm saying. So your name? Ines, my name. Ines. Yeah. Um, uh, you know, how long have you been in Gambia? Just coming in. Just coming in. Yeah. And welcome to Gambia. Thank you. You will see the Damada. You, didn't a smile when you said welcome. You, you, you, want to see me say welcome to Gambia? How do you say welcome in your local language? Uh, Dalalajamba. Dalalajamba. Yeah. Okay, we say Amedi in my Try. Amedi, Amedi in Gambia. Right? <laughs> Amedi in Akwaibom language. Amedi in Akwaiba language. Thank you. Thank <laughs> so will you take me to Nigeria? Ah, if you're coming for business, we want a lot of money there. Yeah. <laughs> No, you're coming... I, I, don't have money. I am 0, 0.0. Okay, so you come for tourism then? Yes. Can you invite me? You need to make an application. Application. Yeah. And say, I want to visit Nigeria. Yeah, no, you write it formally, then we'll receive it. All right, then I will do that. Yeah. Thank, Thank you. you. ala demee euh, saa su ne mu euh, kii nag seen gan la euh, jógee ba fi nga xam ne nag mooy Nigeria comme ni ma leen ko waxee rek mu ne foog ñu bugg ko ba den moto bi dafa taal so nen xaar si kanam rek ñu seet na dinañ mën a approche keneen so comme ni ma leen ko waxee rek airport bi mu ngi xaw a empty tey um, unfortunately so bu leen bu leen bu leen tiit bu leen ragal man la faatu dinaa leen créétal lu fi kenn créétut indil leen nag lu neex a neex a neex an empty airport does not mean dafa empty forever este la So let's go. <laughs> gis na tey officer bi dama xam dama sol daala bu gudda moo tax mu ngi ni xolal baabu mu ngi def fi waane ah ni dama officer bi kat ba ngi ni xool ko gis ngeen ko te man ak moom sax den amoon nduroo officer bu am bir la kay kay fi kay kay suma xarit bi ah officer bu hard working president baro gisal ki nga xaamee ko hard working officer ngi non gis nga ko wa dafa bañ media bi jël ko waaye yokkal len ko salary am bi dégg ngeen nen dem wal bro ndesawan way yin gambien si ñi ne mari rus loxo la ki mu ngi ah ba def shotam ah def li nga xam ne nag mooy daalaam nag gis foog ko semestre ma muy bañ ah kii lu moom na xajaan ak kanamam mu mel ni kabada gi rek mu suur another hard working man boo xam mu ngi woon agriculture xaw ma na mu ngi fa ba léegi nga léegi gars yi paaleen na nga def maa ngi fi rek noo tudd Ousmane Jammeh Ousmane Ousmane nga ay mic di joxe ay speech right now country director uh, Muslim Hans Gambia. Mashallah. Mm. That's beautiful. Look at the airport. I'm am gan mo jël ci. Way way flight dafa delay. So dama dem doxantu bi ci kanam ma del ci wat. Ah da nga doxantu just ko ut sawarnes. Wow. That's right. So na jamono ji ñu ngi lay am gëjë diga yaangi Muslim Hans. You know naka fofu loy def. Uh, ah, fofu ñu ngi work in livelihoods support uh, people in agriculture livestock poultry uh, well digging borehole sinking support to orphans mosque construction waaw yooyu lañ nekk di def ak orphan sponsorship macha allah yi nga nekkoon agriculture jamono yu yàgg jamono jàmme you know you know ngeen def lu bari si agriculture boo ngeen especially si up countries bi del ngeen delluwaat tuuti rek ngeen ñëwee ni naaj bi mu ñoo xaw a disturb ñu delluwaat tuuti rek si jamono jooju waaw jamono jooju nekkoon na regional director West Coast Region nekkoon na regional director URR nekkoon na regional director uh, CRR South then nekkoon na uh, director general department of agriculture nekkoon na permanent secretary ministry of agriculture nekkoon na deputy minister of agriculture around 2015 waaw ci laa bàyyi macha allah eh, jamono jooju fàttaliku ñu rek nañ delluwaat tuuti recap ñan ñoo fa nekkoon si agriculture bi su ko defee ñu fàttaliku gars yi it's good to celebrate time boobu just before ma nekk deputy minister Solomon Owens mooy woon minister of agriculture mooy woon suma boss at that time amoon nañ people like uh, Sid Drame ñu ngi fa woon amoon nañ people like uh, docteur Diop director general Nari waaw amoon nañ uh, people like Falalo Touré moom tamit nekkoon na fa permanent secretary ministry of agriculture ñu bare bëri ñu ngi fa woon waaw waaw macha allah jamono ji soo leen of agriculture loo koy jamono ji li ma ko mën a wax rek mooy ñu try increase budget allocation to agriculture at least something like ten percent Maputo declaration bi mooy recommendation bi otherwise liñ uh, agriculture lim soxla dafa bëri soo leen joxut xaalis bu am doole liñ mën a def liggéey gi ni mu waree loolu lu am solo la waaw bu dee uh, ñaareel bi mooy ñu ñu góorgóorlu seet nu yoo yéwanele mbéyum maalo bi si réew mi because mala bu ñëw isi si bi jëlee si biti di isi si réew mi dafa bari trop foreign exchange bu bari laa jël ah xam ne dañoo dañ nekk di use suñ foreign exchange pour loo xam ne mënoon nañ ko def si réew mi loolu laa bëggoon ñu seet ñu seet staff yi sax ñoo xam ne xam nañ liggéey gi ñu def leen si place yi di gis naa ne loolu tamit problème la agriculture maa ngi fa gis ñu bari ñoo ñu bari ñoo xam ne xamuñ liggéey gi duñ mën a def liggéey gi amuñ expérience bi amuñ training bi war nañoo seetlu foofu bu baax loolu am solo la waaw. sa gan ban dëkk la moo ngay joggé eh, Pakistan My eh, right now eh, Mauritania la demoon one of our country offices so right now mu ngi Dakar airport so dafa bëgg a fi dan ko dañ fi bëggoon def M&E training monitoring and evaluation training pour staffi. staff yi ah. so lan nga ko préparer xam nga yeen da ngeen bëgg a no teaching materials lañ nekk de prepare rek. su ñëwee dina dem Sunset Hotel fa lañ fa lañ ko prepare pour mu dëkk foofu at least for a month and mu coordinate training for our staff. ak Sénégal staff bi country office bi in Sénégal ñoom ñëpp dañoo ñëw fi ñu am training on monitoring and evaluation waaw. ñu invite Gambian Talents dinaa ko seetlu. jërëjëf dégg <laughs> nga. baax na. thank you. jërëjëf. all right kon na gis ngeen kon daanaa ne agriculture yaa ngi nii lii leen wax si Gambia nañ célébré tante dara daaxut ñi nga xam ne ñoo fi liggéey ñu jox leen place bi mais tey di leen fàttale ko loolu dara daaxut ko kon kudos to you. jërëjëf man no man fani gejna fi dama febar. dama febar. Oh, oh, man sa sori mula dara jodde nga bro na nga def do ñoo ñu waxtaan ñu balal la bro yow nak ñewal ni rek ñu waxtaan Dega dega dega, it's it it ah dega dega dega. Ne dégg neexut ba neex ne ko neexut ba neex waaye Gambia yombut dangaa gis nga ñew airport di buka welcome meeting, yi ñu laa daw sister yoo ñu ñaananduroo sa bopp bi comme suma bos kay nee na kaay ñaan naa la way kay bu ma ruslo. ah ma may wa waa baana hola ki dafa ne ma jay gaaw mi ne ma interview wal kele nekk moom mo doon daw way sila boka ma ne ko sila boka e. e. E. bro kay man sa rasta bi rek ma ne kay wa kay wa kay tawal bro bu ma ruslo, ñu ma ana ba wax te dafa am lu la non la la comme du yo ya, yo ya, ya, mom taxaw nak yo la doon wa sa affaire dafa ma ne ni nga defé sa chat ah Dosa Naik naka nga. jaama rek. si ah maa ngi nii rek. noo man ah. Yanka. Yanka tur la. tur la kay. Yanka tur bi fu mu tur bi Gambia. Yanka. Mm-hmm. Yanka naka. man Yanka Ndiaye. Yanka Ndiaye. Mm-hmm. eh yow kii suma doom ndey la Ndiaye jaata Ndiaye tubaabu la tiiro kuma sant sa la santa madame Ndiaye. moto yaa ngi nice. maa ngi mm-hmm. sanse baax na. jërëjëf. looy def si airport bi. ñëw jël suma benn broda nii. sa benn broda na sa benn umu umu. non suma benn broda so anamu. léegi tey mu laan ah, around six ya. all so si wàllum lekka loo leen ko pipiyaaya. bëri na sax. lu mu buga lu inspire gars yi su ko fee ñoomee ñuy mën a ñëw xuli. non non lu mu rek nga toog a ne mu ngi si kër bi appreciate yaa thanks all right yanka right kon kii moom yanka la next su ma ñëwee ya, chat laay sol parce que kii chat la sol <laughs> baabu am taayat en semestre laa fi gis wan naa ko kii moom reet la dóor mister red red fàttale ya ko ngeen ko ah red stand for love mu ngi nii na nga def ah jaamale sista na nga def noo tudda ah Haji sila Haji sila Haji yow fooy dem ah Columbus Oh, Ohio. Wow. Ah, okay. Domayo. Uh, ah, next time. Next time. Mm. Ah, next time bawon. Wul wari na eh, have a late to the mota. So jamono ji yaangi ñew holiday naka won sa holiday? Ah, nehon na torop. Bari wut wan bu ba because four weeks regular. la enjoy na ko torop. All right. Wow. See what fun nga ko enjoy ne mu nga dem mande. Uh, ah, no, the one man didn't exactly. Why, Munna speak to you go. Why, the woman, so say, Buba, no, yeah. Sorry like lan them show all of this so nga am going to sa holiday. ah neexoon na trop enjoy naa ko bu na with the family bi paa ngi fine kay. Mm. kañ nga gëj Gambia. ah April 27 lafi fi just five months ago. all right that's nice so you nga ñëw nii Gambia so naka si wàllum lekka ban lekka nga gën enjoy. ah suma favorite mo. Yes, sir. la yaasa jeen loo ko lekkee ku duur na loxo loxo laa jëloon waaw ana semestre buy ah, jël loxo semestre faa defi fi semestre waaw wala daaw si loxo bi leen starté dem bi use so naka woon holiday ban moo nekk sa best part of sa holiday uh, best of past, best part of the holiday be enjoying with the family, getting in out them restaurant. ak si bi so la mën a kon the best part of the holiday bi macha allah so tey ah, doosi kosam doosi daalaam bu reet ah maajal so sanse bi koo ko tuddee ah bii moom tuddee naa ko Gambian yi yëpp yëpp so kana kana kan ngaa moo especially si semestre si ah maa ngi nuyu ñu nekk Columbus Ohio yëpp ñoom laa bu baax den ma dem si yeneen states yi daal. macha allah macha so naka nga gisee suñu mu ngi dem na demut. Ah, tuuti tuuti ñu ngi mu ngi dem tuuti tuuti ñu ngi try moom ñu yaa ngi try mm. ah, <laughs> waaw boobu moom dama wax mu góorgóorlu especially yoon yi so suñ ko suñu mun a jàppale loolu mooy number one thing. because eh, development yoni la aklanati, lanati a ah, laat bi moom a ah, den wala liggéey si loolu mm-hmm. because bente mung eh, si gannaaw wa nagai na gaay go, rek over fifty years munu ñoo fix problem bunda ndaw waaye yaakaar one day nañ ko fix a So daal soobee yàlla da sit down Semester Avenue Wow, wow. Eh, ma ko follow bu baax mm. YouTube la ko setane buba. bu baax dama ko enjoy nag. ban mhm. moo nekk si best party semester away lan moo la di gën a si semester away. Ah, soo lee best part bi ah, sooy interview nit ñi ñi di la tontu waaye ñeneen tam xam naa ne de lee soona maybe suñu suñ àggee fii maybe two days ñu si yoon bi especially ñu lee jógee fu sori sori yeah dégg nga <laughs> mm. jërëjëf yow kontaan naa si yow ok jërëjëf Fatou Samba nga nuyul ma sa jabar dégg ok na ko moom fii la nekk moom fii la saay boo ko rek boo ko faatoo naa ok amul problème jërëjëf dégg nga all right bye a dadi bye gis ngeen monsieur Sylla ah semestre yi gis nga mu ngi gis ngeen ni moo yu siri santé xool ni moo xajaane gis ngeen ko lii ngeen dee xamee gis nga semestre dafa nee xamee koo xam ne nekkul semestre maasi yi la moo nekk ñoom ñoo dee sonal seen boppa bugul bulul ah waa real semesters do the real thing dama soona tey daal la bugg da laa sol am tired waaw am na ku ma gis tey moo niceal airport bi jigéen bi moom xaw ma ko waaye nice na sa sanse baax na sa kola toj na sa sanse bom yow lii lan la ni ah kaay jàng na ngeen def jaama daaxa ya. kaye ni kaye nii su ko fi gambeen si gis la yow superb thank you noo tudda Fat Diané Fat Diané waaw Diané rek nga mën a santa yaa ngi rafet ban dëkk ngay dellu Brussels lay dellu Belgium Belgium soo demee nuyul ma Sima na ko dégga suma sista la ko sista mu ko nuyu Fat Sama kañ nga Gambia man yàgguma fee jóge maa fi jógee boori match, laa fi jóge nii Eh, loo ñëwoon def si da am programme da am xew suma rakk lañ doon taka soo ma ñëw ceetale ko. macha allah waaw ñu def dem yow mag bu baax <laughs> waaw gis nga dañoo try rek pour def yu baax. waaw waaye mënoon nga am sa teranga am sa ticket am sa everything toog ba bëgg nga sa rakk. waaw dégg la kay waaye xam nga yenn saa yi mun ngaa sacrifice pour family bi so loolu laa def daal. Mhm. waaw. lu am xew bi neex na trop. naka la tudd ak ku ñu doon xewal nu mu tudd. ma jaane.

gis naa famille bi waaye dama soj nag. <laughs> soo ah, <laughs> si wàllum lekk yi lan nga gën a enjoy. man lekk naa suppa lekk naa jën lekk naa lan lan ay naka la tudd um, ak ak li um, naka la tudd ah, kaw food cere kaw ah, moom dama naana naanam naan ba soxla. ba pare ak lan. jën of lépp laa lekk man daa bàyyiwuma dara ah, maa si mboq yi di daw di riiteere kabaay yi fu nekk lu nekk jël naa yow na fu nekk ni waa Belgium nag yaay tax gaay ah, ñu ñu ñu ñu bugg a ñëw Gambie ñëwaleen ah, si ma xay dara gaawal nga ñëw moom dafa waroon a ñëw waaye afta mu am dog-dog ne dafa yaram ba dafa tawat waaye daal jëlal naa la sa waala patil naa Si mas mas la degenta ta den de wanda man duro mom wa degen duro sa wa degen ne yalla ñewal ni ñu bari kula gis dafa ne mom la wa lol lay wax lay wax sima mas sista bu wa sa tamit baxna li ko ko tudde parek, bopa rek sama dama bëgg bo bopa <laughs> man man ci yow <laughs> man tam man ci ora jërëjëf de nen di setan, ah, di kontan ci leen di def wax dëgg ne every year dañ lay a sevesta ah, venue. ak yéen yee. kii sa sa sista la de. waaw sama sista la xam ne la. kay. kon kan kan ak kan ngay nuyu Belgium. ah Belgium daal nañ def ni man rek jënd leen seen ticket ngeen ñëw Gambia ngeen def ni man rek niw ma kenn ñëw leen. jéena kontaan nañ si yow. ñëw ñu bàyyi la interview by force maa ko wax kenn waxut ko sa njëge si kan ah njëge si Fat Diané si suma broda waaw na ngeen def nuyu nañ leen ah, so li interview bay yow da nga bëgg sa jabar de ah moo tax ma topp ko ni drive ko ñëw ba airport indi ko waaw waaw noo tudd Fatima Fatima naka Fatima Sarr waaw kañ Sarr rek nga mën a sant borom sant bu neex ah kañ so naka woon holiday yam bi mbaa toppatoo ngeen sant bari because tam lii lañ fi am there is no place like home Gambia moo tax ñu ne the smiling coast of Africa kon nag fii nag moom mooy lépp waaw dem ñoo bëggut a ñibbi sax waaye because of liggéeyam so lii dafa neex nga joge sa jógee sa dëkka dem beneen dëkka dem uti daan sa doole ñu ne eh, nit lum tukki tukki tukki xelam a ngi dëkkaam waaw ñëw invest sa dëkka def fi li nga am kon nag sant yàlla la waaw. macha allah <laughs> kontaan sa baax na li nga def. ñu seen ginnaaw kontaan nañ si yow leen a seetaan waxtu bu nekka te li ngeen def dafa rafet because lii dafaa gën a tax sax nit ñi you know di gën a seen xel di gën a ñëw di gën a dellusiwaat di gën a gis tamit lu baree baree bari because am na yoo xam ne ñu ngi koo wax xam nga di ko lii te nekkut soo fii daal di ki jaamala di ki teraanga la dem dem jeex jërë ngeen jëf kontaan nañ. su ma ñëwee yaa maa jël seer. tey yaa ko tey. parce que ni nga simal nee na. non tey su ma ñëwee yéen ñëpp. Ah. crew daal kuy ñëw rek maa laa jël ñëw ñu doon tukki ñëw ma kii dafa mel ni Paul moom ah kay suma jaay. jërëjëf dégg nga thank you xool leen ah, ki ko ñëw jël si naka la def ah, macha allah maanaam Sarr suma tànka mu ngi métti. dama simi suma daala comme neex na semestre bii nag moom dafa ñëw ba airport simi daala No matter, suma abe dala No matter, si ma ya ma dugal si trouble bi yeb mere buy sa sanse lan la am buga waxtaan ay uncle uncle you look like my dad ah can i talk to you xoolal kii Mujer mu jël kanamam bi na nii ma you look like madam thank you not welcome ah how are you gentleman you look smart how are you I'm good, thanks. How are What's you? your name? Martin. Come on, can you talk to me for a minute, please? Uh oh. I'm sorry. This is Gambia lii dafa stress de next week duma ñëw airport man duma ñëwaati airport mero pawo pa salaamaaleykum uh, can I talk to you salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu i tuudu nte Fatou Tunkara Eh, Nata mole danda. na -hmm. Nasi nama wale kata France. Iyo. Ito dung it eh, ito France. Eh, Nata mendanda wabe dunta konoto de. Iyo, iyo. Kana kabake. Neysan, mer bi ku baax la ndeysaan ah gis ngeen bi waxtaan nag ñun ah mine domam doomam la ñëwoon jël yóbbu ah mo doon France macha allah baabu nag da gaaw su ko defee nga maa ñoo dimbale si gaay di làkk ak gaay mandinka bi xam nga yaa ngi understand ibi cool leen kaay ah baaba maire bi dafa mel ni maire bu cool waa ah. waaw maire bi maire bu cool la waaw <clears throat> maire bi moom nekka maire bu wax maire bu cool comme nu nga dégg soose nag utal ma jëkkëri soose ma bàyyi Aliou Momad Ndiaye <laughs> non waa baax na daal daa utal yaa ngi nekk di rek man baabu lii rek ma naxari utal ma soose bàyyi ma jëkkër Aliou Momad Ndiaye yaa ngi ree Aliou Momad Ndiaye su la dóoree nga ree waaw non non moo tax ma Hayo comme ni mwanaume funda suso dala buguda dafa gida nyoste dafa gida gara mata <laughs> mata muchen mata muchen dala bi baabu ma sonal airport bi dama bëgg ngeen xam maire bi dama ko dee bàyyi xel di ko seetaan bi ko gis ah na nga def di ma fi dama yaakam waaw kon Man, Antilama. Antilama naga? Balde. Balde. Oh, wow. Antilama, nila nigi si airport all the time. Yeah, neka so hardworking woman. Yeah, thank you. Man, man, one of the security coordinators, aviation security. All right. Yeah. How long neka si airport? Um, I'm 24 years old. Wow. Yeah. Yim airport. See airport, Berek. Wow. Duma di mala matuki. yow kay moom su rek ma jàll la ah. incha allah dama rek uti visa rek ma ñëw ceg la visa man ma bëgg a ñëw rek ñu use di order back <laughs> boobu nag andaluma boobu <laughs> ah, kontaan nañ thank you thank you macha allah gis ngeen ko 24 years mu ne mu ngi liggéey si airport wax naa leen ko ku yaaga si teen rek baak fekk fa all the time Gambien si dina yaaga si liggéey bro naka bi looy ragal itu ito ɗum ɗum laamin sise min naka ɗo sise sise he sise ko naaman kamɓe gago il faut kala sise da mura man ka mura bi yet e appoto jade nga mura musiŋo to jang nde nara muli lo kun dum jela bi jang oh, kay kar kilin ka jang hmm, kay kilin ha ah, in ina den da munan na na na fulenolam hmm. na fulenolam apoto na belgium ha so kaɓe ala wolo kon a yew yemu mune kay a ah, ah, ngamen kay wala mu nyinte komen ko to ngal nga samba dala ha ay jeje komen like crocodile pool snake farm and then etc etc yes sai momo nata ike ike dum yemu dum si wa mun mata ay mun dum baake ay wala benna kinota ɓenna kino anin place sani yasa ay wolɗomo ɓake jam yes okay. ete ko sise min to kunda sise nde originally i'm from kiyankeneba yes kiyankeneba yes okay. so ibe mune fula aminu ah, be jibiro ñin temo ani ani la fuleno min min ket min ket min ketateng ah mbe men fula men be jibiro ga la do ko be data bakere because comme wol ñinin ka nin kalo mune be kering anin ñi mol men ngi sama ngen to di solte mo na fasi fasu banko kante o kuma ta bakele anin be bare fana comme ya il y a ko un commun même folan même folan ñi ñi ngai business wot na kende ke because menu nu nyame mo ni sai men nu is quite different ah uh, because first time nu business o monsoto ba sai alhamdulillah kol mina kan do mo ndo mandi ha ah. baraka ba baraka ba ke ni ka aji ngem nga dem ma fi rek nap nga ma doom laa la. man paa yi rek laa noo. ah na de baax na. nga ne noo tura. kii mooy jabar. waaw kii suma jabar la. kaay kaay kaay xool kaay meer sa jëkkër daf ma nopp kaay fii kaay kaay kaay man man man ba bu daa ñu xeex fii doom. bàyyi loolu ci suma jëkkër la. léegi man dama bëgg a wujjee yow. déedéet déedéet bu yow Dari Pongali. Alright, so London Airport. ah dama ñëw gunge suma benn mag. dem Barcelona. Barcelona. alright so naka nga feel di ko ah, ah, ah very happy mais after damay sad quoi parce <laughs> amu ada nga koo xam holidays lagi nak, eh, ah, <laughs> muy dem dellu. amuñu rek daf may lifin quoi le bay wetal bi jox ko mu lekk. Ah, waaw jox nañ ko lekk bu baax. comme lan ak lan. Eh, ah ganaar <laughs> gis ngeen suma jëkkër bu yees baa ngi nii ah, a moo nekk noonu si kanam a nabiya kaay ah, fii benn góor laa fi gis ko xam ne time deportation bi lu bari la fi def ah gis ngeen ko baat boo yaa ngi nii dafa dafa struggle so hard ku Gambians so Gambians should know nagam bro naka may ku dama naman yung dro yo holal juk na gay gis interview ren de ka biyo ko bro naka bye bye yayi ba alhamdulillah sante na dem airport ah ma ngi gunge suma benn mboka sa mboka yow kañ la la bunge kañ la la ah man ah inshallah du yaga inshallah yow no tuda man Ibrahim apa? Alright, semoga boobu noonu lo lengko ko toogal si bena bi. waaw benn benn benn cin. ana Paul ana benn cin. Béykat ana pol kay hamul benn cin. Pol Paul xamul benn cin Paul demoon rek la xam. déedéet ak Mahal. déedéet Jola moo xam Mahal. Paul waaw. so right now gan bi moom ban dëkk la moo jógee. mu ngi jógee Sudan. student. Yeah. That's nice. su nga wax ko ko nuyu nga. Oh, jërëjëf. ah man suma xarit leen saa su ne ah rek lam dee waaye gis nga góor bi nu mu defee naay gam ba cappa ko saay bro kaay maa la promote for the time nga feeñ tele kaay ma ne nga ñëw bro ñëwal yow sa naay dafa baax daala naay yére naay yow baat baat maan nga naka nga def. alhamdulilah. noo tudd ah? <laughs> Mohamed. looy def ah, ku bugg dem. ku dem. waaw yow dem. ah su ma kay incha allah. Hmm. duñ dem Bakuy. eh Bakuy baaxul. <laughs> na dem. yaa <laughs> ah, den ma ne réeroo si airport waaye xoolal ma ñetta yi yéen seen abaya nice na ah caméra. it's semester avenue we celebrate you there is nothing like home. no thank you sorry meer ana meer no bu caméra ah meer yow ku la xool yow wala le ma meer bi ak magata yow ba ne aman aman lafte caméra ah yow meer bi lan anyway meer dama leen dee sonal rek boy I was waiting for you naka nga def angale mooy de waaw man tam dégguma angale sax dama capani rek ah noo tudd man Lamine laa tudd caméra bi la sona man soose la loolu mu tax small le yeah si loo ne ba finding gago a ah, ngeje airport jang a ah, bi bi mu ne mu ilos lo la airport to jang nde nata ka na bro da la ben ye aka wana england ah, kana gambia so nata ka ben so ka ba ta a sanyi jelo anu e kabla fama da banko kanja no ada mon fama jang aka ta la na yo sa na on kedola So bi nata abe nun, e, aye moun pe pre siva moun, domo siva mi anko, ako, ako nanata abe we fono domo, moun wote? Ah, definitely, nga la la muso lo bo fono, because uh, ala muso fila atambira. Mm. Yeah. Ala muso le? Ah, ina ta kan nyaro yana. Okay, abaraka bake. Pena tuba mu ngi romba mu ma hol, so fog rek ma chapa ko jël ko bena one minute. Ah, su ko defé rek I would interrupt a bit. Ah, ñu meleen tuuti ñu nataalo. Hi, how are you? Uh, what are you in? Uh, io italiano. Do Italiano. Ora I speak Italian and you know. Ciao Gambia. Ciao Gambia, you go in? Nangadev? Come stai? Uh, uh, bene, bene, ah, grazie. Ah, come stai? Tutto ok, tutto, tutto ok. okay. I was Gambia. Bella, bella. Gambia, il popolo gambiano. ah nice bro kaay yow bul daw yaa ni ma abal la yére yaa ngi xajaa ma ne bro taawal yow yow nabi kaay taawal kaay nanga de man sa dama yaakam waaw man jafa laa tudd jafa jafa fay fay fay ah. penda waagaan dugu dugu waagaan angis waagaan ah, jafa ñu ngi la gis si airport bi man maa dem ni Dakar laa dem ni waaw eh, yow semester yow yow ni Dakar nekk ni rek nga dem Dakar semester man waa Banjul laa ma semester dem Dakar ak plé non Amérique laay dem waaye maa jógee Dakar waaw dama baala rek nga yóbbu waale non si waa baax na ah, naka woon eh, you know wàllum lekk bi ban lekk nga gën a enjoy waaw lekk yi rek suba kaay njaaw dama daa yooyu noonu rek ah, waaw waaw bi ma baal joo dem nii bu ko dama xalal ma ne seetaan Semester Avenue rek non mosuma ko seetaan de ko seetaan dégg nga ñun ñooy bégal ga ko seetaan ah, jërëjëf jërëjëf dégg nga fooy dem si Amérique Providence Rhode Island boobu duma ah all kon caba ko Hello, how are you? Hey, hey, I'm going to kill kalla. Mene celebrity bu mag mo ngeen <laughs> You work so much for Gambia. Ki xam ngeen kalla. Moy doomi Paul Morons. Na wa de wa legi ken dula You Wa da nga rafet sa structure bena. Ah, balal mo wa okay, ñu balal ko. Bu boba ñu balal ko. Ndeysaan ah, liggéey na Gambia moment. Ndeysaan daf daan def ah, so much. You know, si biir dëkk bi la su ah, ko ñu ko rek ah ko ñu ko comme que ah, media ñu ko. no I speak French. only Spanish. I speak Spanish very well. how are you. I'm fine thank you. Hello, nekk. yeah. where you where you going. Eh, Barcelona. Barcelona. yeah. say hello to Barcelona people. you look beautiful. say hello <laughs> Barcelona. Barcelona your name. Marta. Marta. ah ah. <laughs> ni husband and wife lan boyfriend and girlfriend gis ngeen gaay wol leen gay wol leen gay huli leen gaay see them see trouble Holland, leen kii abal mbaxana bu sol xam ngeen J5 you see J5 bro naka mana ya, yang ngi ya, ya, cool sant yàlla yi sama caméra nga mbay xajaan non non du xajaan nga ma ree gis sama morom ñu ma lo, ñu dama ci non non non bu ma rus lo way sama dom baay nga naka nga def man ma cool sant man Usman la tuday no bojang nag Bojang iya. ah Bojang Mbaa ñu ngi la gis si airport bi lay def fi ah dama ñew jël suma xarit sa xarit yaa ngi mel yow yaay semestre bi wala dalay sa dal dalay wala ma dalay semestre man kañ fi la dëgg ora ñu ngi ñu ngi gis dalay gis ah li semestre yi rek ade def yi wala li ah so sa gan bi man dëkk mo dem non mo mu ngi jógee Finland waaw tu la ngay fakk la yaay semestre non non man du ma semester man fii <laughs> laa bul dégg <laughs> semester la dafa ñëwaale jëlaale kooku doonu rek yéen xoolal li nit dinañ ñëw mi ne la ne moom nekku semester gis ngeen ni moo doxee gis ngeen xoolal moo doxee mi ne is from Finland <laughs> kay fii maa ngi suivre benn semester come come come with me let's go it's me beneen semester seen mbir salaamaaleykum maaleykum salaam noo tudda Alaaji Alaaji naka Jawara Jawara ah ah kañ Alaaji Jawara wala si airport bi ada eh, da semua jawar sejauh ya jabar. jawa di gambian jawa di jabari hmm. no jabari coba noonu. masya allah mau tax kañ nga farni mamba no mu baax. no no no no kan eh, airport ya. so yo ban kan nga nekon Gambia fi ma fadan dia cuki hmm, no. déedéet ini Holland yéen ini kan ah fii laa nekk daal. maa laa ñaanal yéen dem si jabar incha allah yàlla may la fa kayit yu bari. amiin. all right so nooy jabar. dara. dara dara. loolu na. óor na dafa yàgg di ñëw fii. ah dafa two times. two times waaye bu am feem. waaw. ah jaru ko no ko da nga ñëw rek nga xool ko mu xool waaw ah kon jigéen bi mu as usual as usual ah kay kon nag dégg ngeen bii moo ko wax de du man maa ko wax so si wàllum lekk lan ngeen ko organise it's different belum buka rek lu mu bugg rek oh, ko yeah masha Allah mën benakin, lekk domoda ah kay so pare nga ko yóbbu ko si place tam yeah ah kay Jërëjëf dégg nga. You're welcome sis. Alright, right Gambia semester Ah, dan dulu. Kaiwa, kai, kai, nyana bu marus lo bro. Nanga def no tuda. Man mai tuda fali. Koli naga. Koli. Koli. Wa. Ah, ah yow ya, mboki Aissatou Koli nga. Ya. Ah, jamono ji ñu ngi la gis ci airport bi loy def fi. Wa, amna kuma wow fi nak. Wa. Sa jabar, sa janxa, sa yaay, sa bajjan. Harit la. Sa harit. Wa. Harit. Wa, suma harit. Harit bu jigen bu goor. Wa, jigen. Jigen. Wa. Harit bu jigen amna. ah rëbb jigéen am na bu bëri sax waaw waaw waaw óor na kay jamono bi kay moom óor na kañ soo sa xarit boobu noonu ban dëkk la moo mu ngi dem Sweden waaw so bu ñëwee loo leen ko pipiyaa mu nge ñëw fii time man juddoo ma sax waaw mag mu ngi ñëw fii time boobu juddoo ma waaw alhamdulilah ñu ñëw dëkkoon Sweden tamit soo su ñëwee fii tamit soo lam bi yëpp maa ko dee yéen a waaw. Ah, kon yéen nag nan lam Sweden. waaw waaw. Ah, yow semestre nga yow. non man bëgguma nekkaati semestre. semestre neexut fii moo ne. Ah? waaw waaw. yow booy bu la nga gis ne tukki rek la bëgg. Eh, waaw dëgg la nit ñi nekkuñ benn. waaw. waaye semestre yaa de. ah neex na neexut rek. waaw wax ñu lu tax su ko defee gars waaw semestre yaa xale la baax nekkut mag. Mm-hmm. waaw soo amee njaboot fii semestre yaa baaxut. Mm-hmm. nekkee yaa ngi dem semestre yaa yaa ngi yóbbu sa doom yi ah loolu alhamdulilah mm-hmm. mais ñaaka yóbbu sa doom yi yaa ngi si semestre yaa neexut mm-hmm. waaw because liggéey bi li ngay def foofu noonu sa xel bi du dal waaw te da soo tëddee sa xel bi du dal waaw. I'm proud of you. You're so honest. Oh, ma. Ah, jërëjëf dégg nga. ok no problem seetaan Gambian no problem ah. jërëjëf gis ngeen ko kii semestre la xool ko xool leen ko si yam mi ne semestre la woon waaye bugata delluwaat moom jamono ji Gambia ko daaxal yéen ñu buga tukki mi ne Europe neexut yéen ko dégg moo ko wax de. Okay. okay. काय काय काय बुमा रुसलो वाय काय वाय बुमा रुसलो नका ऐकू Ahora cámara. No, ऐकू Tam- तमसीर बाई Yo soy un boca, un bain basu. A mí no me yo quise un boca la. Yo tan si fue de ganar. No, nit laa gunge si. yow mi No no. nga. non non encore I was waiting for you. seriously nit laa gunge si. waaye ngeen duroo semence. waaw waaw amiin yal na ko yàlla sotti. waaye dem nga yóbbu waala ma dégg. waaw dañoo allah. jërëjëf semua broda baa ngi nii daw na ma. <laughs> waaye airport is sweet Kukau ko waxut dafa iñaan na ngeen def yéen a ngi ba non sis yaa ma neex yow nii nga def jël ko ne ko buju bajas <laughs> kaay kay kai bu ragal nga ragal nga ragal mo da nga dem nga ragal kay kai kai <laughs> ah wa ko mu ñew kai na ñew <laughs> ma ne bul jinko fi nga tok ndoxé na de man dëru naa la jinko kat. non niroo la woon loolu sax. soo ma ko waxatee. ay waay waay waay masa <laughs> anti yow nee nga ma di doo ñëw nii rek na nga def. fet wala suma caméra. <laughs> man ñu ma laa anti ñu ma naka. maane. maane waaw. macha allah naka la ñuy tegee maane kundaay. ah sori dégg ma bu baax de. so ban dëkk nga man ma nga dem UK waaw UK Leeds waaw nuyu ma waa Leeds salaw ko dégg woon sa bi si wàllum lekk bi eh alhamdulilah macha allah tabaraka because léegi naa bu baax baax ah. waaw enjoy naa boobu logo duna loxo suma loxo laa jël ba mo semestre ak loxo bilaay ba bi sax suma <laughs> doom jërëjëf waaw loolu mooy lan mooy programme bi programme bi. bi ko waa diaspora bi la waa semestre. ah waa semestre la. waaw ñu leen a bëggee di waxtaan ak yéen. waaw waaw. nga seetaan na ko seetaan yow tam Gambian Talents waaw yow tam dinaa la ñaanal yàlla def leen jàmm si liggéey gaay bi si liggéey rafet li ngay def bala ma dégg ma olof am nga waa suku am nga waa suku tey duñ dégg olof waaw baax na jërëjëf mbed walaale fa ale kayro kaaliye ali al so ndam la alla do ku ñi mala ala barka ma masha Allah barka ba ya. jërëjëf thank you so much thank you masha Allah I love you man I, I love you too darling oh, you are you are not married you are baby bi no am meer naa kol mi meer <laughs> ah gis meer bi macha allah mi ne mu ngi dem foofu sa Angleterre sa liit hello gentleman can you come come come <laughs> I am tired kay na def eh, bro doo ñëw nakam kuluma kay kay mi ne bàyyi ma ñëw waa bari nag fu mu nekk nii seen time ku ñu dem so ñu bàyyi leen ñu dem because time la gaay amul Gambia guess what guess leen kan laa gis naka mu demee maa ngi nii rek di la sant ah, Gambia nama naa la maa raw maan si loo ne ah maa ngi nii rek xanaa sant yàlla Fatou xam na la waaye ma bàyyi la rek nga wax gaay yi doole la ñeex anyway man la Mohamed Soumaré um, the of the Gambia Music Union program coordinator of the National Female Artists Association and a cultural activist and human rights defender within the crevice sector of the Gambia. suñu doom foo jógee. Ah, dama ñëw dafa am loolu suma doom lu mu yónnee fii loolu laa ñëw jël si. sa doom sa doom bu mën a yónnee. waaw mu ngi kon paa nga ah, suma doom bu góor mu ngi Spain. waaw kon yow léegi parce que yow am nga doom ba doom bi mën a nekk suwe non teel a seela rek teel a rek ah, yow léegi màgget nga non non bente maa strong ah, ah, ah. <laughs> suma buroo daa ngi nii eh, jamono ji ñu gis la ñu duga rek tuuti rek you know si music union bi noo gisee music union yeah music union we are moving comme nu ma ko waxee rek saa su si interview mooy ne union is here for people and those people are the artists the, uh, the commitment is to you know you join to the union pour mun empower the music union of the Gambia because their legal rights their policy copyright law and other policies you have xam ne show around surround the creative sector and the entertainment sector bi do ko empower and enforce if the stakeholders are not together loolu rek moo ñu mun tax copyright law boo copyright law bi ñu mun ko implement those are the challenges we need more commitment members to the union, but we're here for them. Mashallah, mashallah. So jamono ji soron wax ak minister of tourism, you know, we can have fofu la walum arts and culture neka fufula walum music neka lokewa. Well, luma minister of tourism and culture and the Gambia government is to put structures together. I think we are lack of infrastructures of the creative sector, the entertainment. The regulation be is not there. And te soko City, all artistic disciplines the nine associations they're in a format register nañ but the one number one challenge mooy institutional support and activities yu nga xam code strategy plan naka la ñu am that funding opportunity internally pour mun a facilitate loolu is a challenge the collective society bunga nga ne form nañ already is in place it's not sponsoring why that question I think the government have to answer that through the Minister of Tourism ak National Center for Arts and Culture. And I am seeing just few weeks, ñu ñu invite in a, a consultation meeting pour ñu mun a am uh, regulation uh, regulation bu nga xam ne loolu lañ bëgg create for endowment fund for Gambian crevice sector bi. so comme sooso lu ñu wax rek ñappi la ñappi kan am lu nga xam ne ko structure already loolu is not yet implement yaa ngi jël leneen ñëw teg ko si kawam so I think it's a little bit distraction within the industry. So government be have to come with that regulation and enforce those laws. The Benin part Bumabuga emphasized more the Parliament House. Uh, the cultural committee of the Parliament, uh, they need to be informed. And it's through this media awareness and sensitization, pour député ñu mun ne the cultural committee bi nga xam ne mu ngi nekk fa pour gestuwaale lépp luy arts and culture ak crevice sector bi pour ñu mun a koo xool wen ministre bi ak NCAC su ñëwee policies o ñu war a ñëw ak yeneen loi yu nga xam ne bëgg nañ pour député ñu ah, gestu ko nga gis ne that cultural committee will have information bu nga xam ne from the grassroots loolu dina leen mun a dimbale. moo tax lu ma appel mooy di ministre of tourism and culture the national center for arts and culture nañu am interaction session meeting. with the entire stakeholders, with parliamentarians, to give them insight about what is happening. What is happening, I think our policies makers, am na lu nga xam ne Luai, lañ moo Gambia every musician in the world they face to come to Gambia It's a free market no regulation open dollar and the constitution is saying 70 percent must be a Gambian content our media the law say the implementation of Copyright Act ah 15% to be negotiate to 10% pour ñu fay to the collective society so lii yëpp nekk di dox so Gambia Talent TV I think yen media outlet la bu nga we can able to share this information with you people to share the information with other Gambians ak government bi ñu xam ne ne lu dégg ak lu industry is completely different as far as I'm concerned. So, Wa dama santa yalla di gërem gambel ci nek biti. ndax tay so gisé gambe bari yu fuñ maru tukki kat yi la Mota tay kéri bari fi ñu ngi am kontaan di am luñu ñu tukki kat yi so ma ngi leen ñaanal di leen ñaanal ñu nek ci biti yalla may leen luñu gaay dem ut indi ko pour si réew mi ñu nga xam ne amuñ kayit di leen ñaanal yalla jox leen kayit bu ñu mëna ñepp ci ci seen réew jërëjëf li mo tax ma like la nga ini news di duggal news di gene yu bon di duggal yu ba kon nak suma da nga ne mohammed soare thank you very much jërëjëf ma sha allah sha allah kon ni la fay deme hello how are you you're beautiful what's your name thank you Khadija how are you what's your name Asia Asia Ayun, nawala naman niya. Bye-bye. See you. Ganun ba niya wahag niya? Sana yakam, gibulan bilim. What's your name? I'm Prince. Prince, from which country? Ghana. Ghana? Yeah. Is this your first time in Gambia? Oh, yeah, yeah, my first time in Gambia. Why Gambia? You say? Why Gambia? I'm coming for some conference meeting. Conference meeting. Yeah. So welcome to Gambia. <laughs> Thank you. Hope to see you more, more, more time. Yeah, no, no, no. I'll spend only six days here and get back to only Six days. Yes, six this. Add more days. No, no, no. I came here. They collected uh, twenty dollars for me for entry. Yeah. And that's bad. Oh, it's not bad. If they are going to use it to develop the country, it's good. That's great. great. See Thank you. you. Bye bye. Hi, how are you? I'm fine. How Your name? My name is Francis. Francis. Yeah. From which country? Ghana. Ghana. Yeah. What are you here for? We are here for a conference. Conference. What conference is that? Oh, we have uh, some conference at Banjul. Yeah, yeah. It's about what? Oh, it's about uh, adult education, like uh, early childhood and adult education. All right. Welcome yeah. to Gambia. thank you, thank you. All right. I, I like your country. It's, you it's like so cool. Yeah, it's All so right. cool. So welcome. I'm your new friend. All right. Okay. okay. All right. Bye. I am Fatu Samba and watch my TV called Gambian Talents TV. Oh, nice. Oh, nice. Gambian Talents TV. Gambian Talents TV. Oh, all right, all right, all right. YouTube, okay? bye bye thank you. naka nga def noo tudd. Thierno Omar Barry. all right so docteur fan nga jógee. Uh, maa ngi jógee Paris nii UNESCO conference uh, UNESCO conference bi really is about higher education naka la ñoo yaatalee higher education pour nga xam ne koo xam ne daal war naa jànga university du sonnati di jógee si dex gi di war a ñëw si dëkk bu mag bi ndax loolu moo moo coo ñu bëri te waajur yu bëri amuñ miin si so ñun yaakaar nañ ne daal conference biñ am nii. aduna ba yëpp daje nañ fa waxtaan nañ waxtaan i am solo te suñu xalaat daal bëgg nañoo dimbale every child mu mun am access to higher education not only higher education in professionalism but also in technical education so lii yëpp moo ñu jógloo so docteur yaa ngi si Semester Avenue damay ñëw airport bi di seet ñan ñooy dem ak ñan ñooy ñëw so docteur ak doon dem next time soo dem dama yóbbu <laughs> yow dinaa la yóbbuwaale ah, waaw dem nga nekk semestre bi waaw gis nga <laughs> so docteur ñu dugal tuuti rek xam naa yàgguloo fa noonu ñaata bés nga fa am waaw maa ngi fa def uh, actually about ten days uh, conference bi ñaari fan la woon waaye xam nga li ma jógloo is more than jos conference bi soo seetee Paris uh, higher education institution si yëpp Paris lañ leen dee registré so bi ma fa demee tamit dem naa waxtaan ak gars yi nekk UNESCO pour seet naka la ñoo amee suñu université yu es yi fi jóg yoo xam ne leen accrédité ba pare won ne tamit université yoo xam am solo lañ eh, like international open university ñu mun leen a tamit si liste bi nga xam ne leen boole si liste bi bi yëpp nañ xam ne tamit bokk si liste university su dul loolu tey University of the rek a fa nekk te yaakaar nañ am na yeneen university fa war a fay um, xam ne ne bari nga te bari ku naa den xam naa ne nag eh, yaa ak ban lekk nga nama ah xanaa suba kanja am na suma jabar gu mën a defar suba kanja la so maa ngi nama loolu pare already ah. waaw <laughs> so that uh, Gambian should celebrate you and lii nekkut faatu moo koy wa o Gambian talents moo ko wax yàgg nga lool si um, dëkk bi ah, demoon jàngi mënoon a toog foofu di liggéey ah, bañ a ñëw si suñu dëkk looy wax Gambian si nga xam ne comme yow leen ay jàngis leen loolee naa wax ku ñu ñëw seen waaw gis nga Gambia dafa mel ni tool tey tool boo xam ne mi ngi pare pour nit ñi ñëw béy si mooy ne daal koo xam ne jàng daal am ay kayit war naa dellu si dëkk bi dëkk bi nag is not yombut xam nga kuy defar dëkk boo xam ne dafa war a jóg soo waxee ne yow li nga enjoy Europe li nga war a enjoy sa dëkk ko am waaye soo ñëwee nga yow tamit nga nga nga nga nga sofa nga sonna mën naa am ëllëg sa doom yi ma sa sët yi ñoom ñoo enjoy Europe li ko defar tey ñi ko defaroon ñoom ñëpp dee nañ ñooñu enjoy lu ñu li fa am tey waaye ñun suñu waree enjoy tamit li ñu war li nga suñu buggee suñu euh, doom yi ak suñ sët yi war a enjoy ñun ñoo war a coono sonna ñu jóg si ñu defar dëkk bi man daal loolu laay kool élève boo xam ne dafa jàngi te am si ay kayit waaw nga liggéey fa tuuti waaw xëy na nga am si lu bëgg nga mën a bil sa kër ñëwal baag nga mën a bil sa country mu baax man foog naa loolu moo war a indi woon la gis yaa ngi tukki ngi sol sa mbaxana ah, lan moo lan moo waral mbaxana man nit yi coono la élève cosaan la man daal cosaan dama ko fonka te cosaan nag moom foog naa ne daal ni koo xam ne fonka na nitam yi fonka dëkkaam war naa euh, promote cosaanam so moo tax na anytime suma tukki ban dama dee sol sol indi cosaan su seddee sax dama xam cosaan sol indi cosaan duma ko bàyyi gannaaw waaw moo tax ma sol suma cosaan ah bi fo comme tuddee ah ah léegi tuddee naa la ko Fat Samba man li <laughs> thank you xam ne tamit euh, comme ni ma koy waxee rek bu nekk dama laa use as an example si sunde ka ah, soo doon war a wax ak uh, president bi ah, dinen don bëgg nga jox ko ay um, you know halat comme ni koy waxe rek ne mom dafa believe ne ñu bari ñu fi ño xamne you know all doors are open so soo doon wax uh, president Barrow loo koy advise waaw His Excellency li ma koy wax moy education lu am solo la man ci education la nekati xamna ni education rek moy muna samp dëkka wa loolu nak nit ñu bari duñ ko dee gis bala nga muna invest agriculture ci health ak yoy ñun yëpp education bi warna digër dëkk yu jóg education dan éducation lañ na yok investment bi education, education na joxe opportunities for every Gambian ñu mëna a jànga su yaakar naa dal jange suñu bëri jàngee daal suñu bëri euh liggéey yu bëri yo xamné ñu ko dem joxe ci biti ñeneen diko ko diko di def ñu dinañ ko mëna defal suñu bopa té suñ ko défé rek alal gi na gëna yok ci bi dëkk bi ñuy am dinañ gëna am bi pare yaakar naa dëkk bi na gëna gawa develop so loolu la koy ñaan macha allah kan ak kan ngay nuyu ñu bàyyi la nga. waaw ñi ngay nuyu ñi ngay nuyu ñoo xam ne ñi ngay ñëw di dem xam nga yaapoon moom noonu la mel waaye ñi ngay ñaan tamit ñu xam ne ñu ngi ñëw déglu nekk si diaspora bi ñoom Pa Ousmane ñoom it nañ tara taraay di ñëw nag from time to time toog fii xam naa mi ngay def bu baax Gambia de ju through euh, your GTTV waaye bëgg naa moom it muy ñëw from time to time investi yeneen affaire moom la challenge suma xarit la amul ticket <laughs> waaw dina ñëw am naa la <laughs> waaw no problem amul dara <laughs> thank you very much super proud of doctor masha Allah gis ngeen suñu airport daf dee ñëw xajaan gis ngeen mbaxana bi la dem waaye kontaan naa si yow thank you thank you Fatama thank you very much kon next semester avenue ñu xool rek xool leen docteur nu moo demee ah gis ngeen ni laa leen koy waxee saa su ne ah gis ngeen mu ngi def santeem bam baax dara daaxut so so ñu xol kan lañu amati next semestre gambe ñu dem gis na fi benen semestre na nga def maa fi rek man Aliou Badiane Aliou Badiane waaw waaw yow ban deka nga joge man ma nga joge Scotland Scotland waaw waaw Edinburgh nga wa Scotland Scotland ñu fa rek ana deka mu ngi neex rek alhamdullilah waaw depuis kan nga gëj Gambia man ah, nine months ago nine months ago Wow wow. Wow. mana Wow. yow Wow. bi Wow. Wow Wow. waaw Gambia moom Wow. dëkk Wow Kan Luma am Scotland yëpp dama ko indi Gambia pour develop Gambia. I'm super proud of you yoo leen soxla si kabi. bi. so restaurant Gambia Scotland mu ngi ko wax ten to ten in Derry restaurant am Gambia tamit maa fi am hotel ñu ngi ko Elephant House. maa ngi may bitik yu bari yoo xam ne dama leen di luwaas pour nit yi ñu bi muslim si kanam waaw man loolu moo nekk suma eni léegi da ngaa ñëw man tamit ma maketal la si Gambian Talents si semestre amee ñu su wee semestre yi ñu dem si sa hotel. ok inshallah. yàlla baax inshallah. I have almost uh, millions of people You have ne ñu ma seetaan all the time si Semester Avenue. ah ok You want TV la. Gambian Talents. ah Gambia Talents. ah Ismail kii seen guys. yi su ñëwee su ma kër leen di stay. Oh. ñoom alaji eh, Alaaji Alaaji Suwaare. Alaaji waaw ak eh, kii eh, ki that TV company what's called again. that's true so legi jamono ji si wàllum lekk ban lekk ngagina nama. man fu lekk Gambia fii man at least benn cin waaw benn cin lan jën mbar ko benn cin jën jën waaw Ah, loxo rek. waaw loxo moo baax. <laughs> semestre ana loxo. <laughs> ah loxo bi moo tax ne moo am barke. Ah. waaw waaw loxo bi moo baax ñu ne semestre yi du ne laal ah, ma léega maa toog suma famille yëpp ñu toog ak suma néebo yëpp ñu ñëw ñu lekk tugee la waaw. proud of you. amiin amiin si kanam. tolof tolof bu fi yàlla mu jéena kanam. ñu yëpp ñu am jaama barke rasul sallallahu alayhi wa sallam waaw loolu laa indi Gambia waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf sister thank you ah su ma seet bu ndaw ndaw te moom mu ngi mel ni eh, faana faana yéen ak sa musóor bu ñaaw bi. li musóoru séeréer la gis nga séeréer yi nuñ dee musóoru. tey dama dem si cosaani séeréer yow gis nga li <laughs> mbaawut. <laughs> Eh, eh, uyu leen kii mu ne suma musóor bi baaxul gis ngeen li ma def rek suma musóor ma tey dama sayse de gi nga fay saa mu doon dafa sayse tey maa ko gën a sayse gis leen suma musóor suma musóor tamit lan la. non waaye sa sayse sa musóor moo ko yaa lii moom. li moom mu ngi ko xam ne dafa xiif ñetti fan. ma kay ma séeréer rek si mun a musóor xool leen suma musóor Fatou ma loo wax si sama musóor bi. non non moo xamu taxawee bi ko moom ma suma taxawee du kenn du ko gis xamu <laughs> nan day gis ko. Babou xamamu ma discriminate but léegi dama bëgg ku nekk si yéen mu mm. taga boppam mm. sant bu nekk dafa am taga mm-hmm. waaye semestre yu bari xamul nu dee tagee seen boo xam nga benn góor romana fi mi mm-hmm. fay la santa ma ne ko fay naka lañ ko dee tagee mi ne léegi ma bëgg a yéen ku nekk mu taga boppam ma xool baabu tagal sa sanda. waaw baabu janxa janxa boole ñu waan a ah, si si bala man sa su ne ñu foo ñu gisee rek. déedéet yow kenn waxul la ne foo ñu gisee baabu bàyyi faraw baabu faraw na ni yàpp xar baabu tey nam ya du noonu. dafa war a tey baabu tey dañ ko dañ ko daaxa sa baabu bés ki tey génne nañ ko sama saabu ñu dama. <laughs> voilà so léegi mën na rek la nam ya léegi sa bopp. man may Sara Mudu Jam Kanku man may na bi Sar di xale waa Baara déedéet lii laa nekk di waa lii munun taga ah, man may na bi Sar di waa Baara ku la laajte waa Baara sa sant la laajte man may Sara Mudu Jam Kanku ah jànxa naka la ja ja jànxa boole ñu naan ko jànxa booli ceeb ak ñu ndamuga ceeb <laughs> Babu, booli ceeb yow taguloo sa bopp dara lu dul booli ceeb. ah léegi. dinaa ko laajte benn question. and question bi moo nekk mooy lan la sax ndeysaan maa ngi mag. maa ngi mag dafa ma dem mag ya. so léegi Babu tagal ñu six Kunda. Six Kunda ah Ceesay Nganjar meew. so señina ko sise kunda akaranta mura mankala muri okay nabe tagal ñu job joba jula <laughs> babu tagal ñu jobe joba jula job dollar buram dollar joba jula amu de joba juba joba juba wa ñu nako job dollar okay tagal ñu ñaayel njaay jaata njaay njaay kuli jaata njaay tagal ma njaay njaay jaata njaay domigada wala tiboro daga sura mina njakuna tuba yabe sal tuba wotira mo funga jawolo ah, so ban sandal ngeen buga ju taga seyam an wi taga it juuf juuxan joxo baay <laughs> ya, ka yene ma nga toga sa menengen ne ngeen taga mbay mbasu mbay mbasu wa no wa mbay mom mbasu lan ci xam waaw waaw sar nuyu neen la kanam juuf Wow, jufa jum jox baay wow <laughs> wow no bi difference différence la wa mine jufa ñoxo habai. yo munu dara na dem to legi nañ dem si Samba Samba Biran ma naka naka naka <laughs> nabi yo bisi ke tay fayene ko gamen men dara naane ko <laughs> aja yow dagal Wow sama biram ya, ah, hati mama di hati mama hari papa kenn kenn du ne wax loolu taga sa gisee taga nga ne xaritu maam xaritu papa taga monika nekk comme sant bi si boppam ah. dang ma tagal samba tay so ma tagalu samba tay duñ gina fini tay mo dang ma tagal samba biram mu jeexali ko samba biram waaw <clears throat> hama hama dafa baat bi Gambian talent is sweet wanalen ko Gambia is nice. Sokobuge is nice. Sokobugut is nice. You have to create it so that it's nice. So stress eh, jela stress na ko pow. Soko stress eh, jela stress na ko pew. Na bero bugat tuki. I'm telling you, serious. So Demba, yeah, daf mawa minha mafatu honest, dema bugat tuki. Doka nyara ganyo dimbale ko mu tukki. no xage moom moom du mun a tukkee waaw bi ko moom moom gaal la xam xam xamu féere gisuloo musóor bi nu ma musóoroo nii rek nga xam ne man dama bëgg a tukki soo dëgg dëgg dëgg da nga bëgg a tukki nii yow da nga am soxla booy yow da am soxla nii man maa la uppa soxla gisuloo nu ma gisee gars yi di xicee wulis man naa xicee wulis rek léegi la yow soo waree dem sa ticket ñu bind fa five ban temps ngaa airport ban five five si suba ndax five si ngoon xoolal five si suba laay ñëw foo dee cappante de fajar càppantati lay ñëw na toog fii suñ bëggee sama clean na leen fii <laughs> baaba léegi time jot na we're tired dowa guys sponsor semester avenue bi ñu bari suñ roomee dañ ne semester dama ko laaj dama ko laaj dama ko laaj dama ko laaj ah supporté xamee nañ la xamee nañ la rek hmm. yéen tam na ngeen di def dara amuñ moto ñun suñ dee ñëw dañ dee ñaan <laughs> lii ba soona ah. aha da ngeen ñu dimbale ñu tam ñu am ñu tam ñu jéem a drive tuuti ñu am li ñuy andi waale fii si Semester Avenue bi nga gis suñoo ñibbi duñ xelaat li nga xam ne mooy moto bi dañuy toog toog toog toog ba flight yëpp jeex throughout ah flight bu nekk ñu ne dañ ko cancel dañ ko cancel right now gis ngeen amul semester yu bari tey baabu baax na ñaan bu bari bi doy na so léegi xam nga ma bëgg a wéyal na bi ya mooy sama mbéyaan Diouf sama mbéyaan. yoo xam ne ban tànk lañ dee commencé féete. aja yow ban léegi ban tànk yow ban tànk. féete ndeyjoor nga ko commencé. soo leen nii rek da dégg rek da dégg waay waay déggin taat tuy waaye yéen baawut toj na fi waaye munul endin bi bala maa wax rek tay moom dafa ji di ko wéyal ko moom tamu fi ana nabiya nabiya mu ngi nii nabiya salaay woo di caati yaayam sal sala <laughs> ngun bu baax baax comme ah, nu nga yéen semestre yi lu ñu wax rek a ah, sobi seen sponsor lan ko nga gis ñu mun a indi fond yu bëri créé na loo gis a ah, il faut loxo rawatina yee waa diaspora yi a fo na na TV saa su nekk email bi ak contact yi waa nga nga joxe sponsor yi neex waa nga gis soo bi mun a dem kanam TV foo fu ngeen bëgg a aaga il faut lan mu am sponsor kon semester en ñu fii la woon bañu international semester avenue ak Babou Jangha ok Babou maa ngi leen di wax ah, ba beneen yoon man la woon Nabiya Sarr nekkoon si caméra bi di same time nekk fi nag di feeca gis ngeen suma feeca bi feeca rek laay def ñu ngi leen a do wax dox daj di leen di jox dox daje ba beneen yoon a ah, fii si Gambian Talents TV di la jox dig daje di la jox kon dig daje waa Inwe Ngara ndigi li Inwe Ngara moo nekk ñu ngi ñëwaat man maa la gën a dégg séeréer man ma nekk séeréer ngay wax ne dégg ma min me sinwa nun mm. fop a mm. Gambian Talents mi Fatou Ba <laughs> <laughs> wala mu ma challenge te man séeréer rek laa dégg mu ngi wax fii nii la Ah, ñu ngi leen naa wax beneen yoon fii si Gambian Talents TV Semester Avenue la woon ñu ngi leen naa wax si seetaan bi waaye bu leen ñu fàtte na si suñu sponsor bi moto lañ bëgg man moom moto laa bëgg ak ba pare sax dama bëgg a tukki faa sax kon na bi ah, ah, ñu bàyyi ko ba beneen yoon mbokk yi nii rek la moo demee saa su ne télé yi comme ni ma leen koy waxee bari neen waaye bokkuñu waaye xam naa ne comme décembre incha allah si la semestre yi di bari waaye comme ni ma leen ko waxee rek ki ma santal mooy kenn lu ki nga xamne nak ah moy bébé puy séeri Soufiane Ndiaye fofu Sweden mo def li defal ma yére bu rafet bi def bem gista fatu bañu dara lu lendem eh buguma lendem kuy daw utima dawal dawal dawal Gambian talent na ñew na ñew wa ñew let's go November 11 nag bés bu egsee rek xol yëpp tooy ndax daf ñuy fàttali loo xam ne lu métti la woon. November su ne rek ëllëg la first November man ci laa dee door de am problème balaa November di jeexal. November 11 victims olmi ka fo yeefa nkema tarta wo mool l'économie nu yaalon koy ka fo yeefa. bay be siren don lunkilen don ikema e bodala to ay ta akata do ko la tata mamuru moom dot faal ak Basiru Baro ñoom lañ njëkk a rey sànni leen ci troc bi ci kaw patrol boobu boobu lañ doon xaar ñanco ben tey gisuñ ko imu ite murunta watu watu doron ite ni woni ko yaka murun wonene bukap adate bola folungo min nan tol fanan fata kabri iban fama faka was uh, months eleven months old ya ya alamali kitite nate adunte yam fala ya yam abada ha ah. ñanco munun ko fatte nekkul doom boo xamante ne dañ koo fàtte i ñanta ñu ñunu kiitindi la de ye sorong moo taa kela kote ke ña nga xam ne moog ñoom ñoo reerandoor dat same nayit ku ma si taseel su ma leen ana dot doomu faale moo se muta yaa muta nu yaa faa yaa saare fo kabiri wiriloo keta nu yundum baarax ye mo wiroo ke je I'm yow amoo kay waaf ci Washington You're my only one. federal stimulus fund wala unemployment insurance yow mi ko amul dawal bindu ji ay waay kaay kaay kaay waay dawal bindu ji WIRF ñoo ma yónni woon waaf ci wasinti ñoo ma yónni woon di laay me, i am jafe-jafe ci covid 19 bi waaf ci wasinti state ñoo ma yónni woon yow tawal te apply in covid 19 immigrants relief fund dawala dawala approuve la dina ñu la one thousand dollars téléphone yeah Let's join hands together and we can go far. Love when another, and we will be free. Now you got to go. حاجة دول دول دول من دول دول دول أبلاي Wow, what's in immigrants really fun? nee na dañoo bëgg lii leer ci yéen khalis bi ñu leen di jox du bor du loon wala leneen xana di leen koy jàppale léeg dawal dawal dawal dawal dawal wa bindu ji dawal dawal dawal waaf bindu ji dawal dawal dawal waaf waaf la West African Center waaf la waaf mbir mi benn cuni wala ëpp daal waaw amul tiit amul ragal sama nijaay cokal te dem waaw lii du borte doo ko fay sama nijaay jëlal samay waaw tapati patate tapati kipa waaw tapati tapata tapati tapate waaw lelele lelele waaw lelele